bii lan diw ma waaw waaw waaw bii ma bëri ma bëri bëri ma jaa waaw ah waaw bii ma bëri bëri bëri ma jaa yaa mu dégg yaa mu dégg ah moo asaan waaw ma ma bëro ma ma ñaay jërë ngeen jëf internet yi bàyyi xel suñuy différentes plateformes ñu ngi leen di jaar di am mbégte lool saa su nekk koy defee rek tey nag mbay la ñu dalal fii si li nga xam ne moo nekk suñu waxtaanukaay mbay ku ca mbay bu Sénégal mbay lambar lambar mbay mi nga xam ne ay jamono ndeysaan ndogal suñu borom moom daloon ci kawam mais ne sant yàlla ndax mbay ngi ay activité am donte da bëggul fenn mais mi ngi génn di rasaasu nànk-nànk mbay ku ca hmm. sama copain yaa ngi naan sa café Touba jaar naa la oui maa baax hmm. mais ma baale nga nuyoo waaw ah, di nuyu ñëpp Sénégalais di nuyu bi li nuyu ñëpp. Hmm. ok Mbaye li ñuy li commencé suñuy waxtaan. Hmm. wax naa ko léegi sama njëlbéenu wax suñu borom teg na la ay ndox bon xam naa ne loolu si dinañ ci gën a waxtaanee. Hmm. Euh, jamono ji ñu toll nag Sénégal gis nga li xam ne moom la ñuy waxtaanee muy coowal politique gis nga li xam ne moom la président jafe def jàppoon ay nit xëy en bon jour bàyyiwaat leen rawatina ndaw Pastef yi wala ñett de ñi nga xam ne ñoo féetee féetee ci euh, opposition bi di booy patriote yi nan nga gisee li nga xam ne mooy président li mu def noonu. bàyyi gi mu kon. président. Hmm? président waaw comme li ma koy waxee rek. Hmm, comme ni ma koy waxee. wax ji fii laa toog dégg jékki-jékki ñu naan la mbay sit yi sax laa ko dégg ñu ne ñu ñu ñu ngi fii si kan kat manuel kat kat manuel manuel kat manuel waaw ñuy taxaw dem rëbës ñuy dem taxaw sënge ñu leen di bàyyi man leen Macky Sall ñaar la bàyyi ñu ne moom tey bàyyi ñëpp mais Macky Sall Macky Sall Macky Sall naa après conférence de presse. yow yaa organiser conférence waaw damay laaj Macky ban cause moo tax mu jàpp mu bàyyi booy. yow xam nga ban moo taxoon mu jàpp booy. booy sàcc. man daal sama yoon nekk si kon man sama yoon nekk si Paco xam nga lan la buur sama yoon nekku si bu ñu bujj sama ne ma jox sama xaalis. comme ça dem na ba bàyyi leen. booy yi sonko yi nañ ma jox sama xaalis. dama mais sama xaalis bi yëgoon ne dañ ma dañ ma woon. Ah, waaw ñi lan lañ jël booy sonko yi. booy sonko yi nan moo tax man may jàll. ma yor sama affaire boobu ñuy def kii saak xaalis ak téléphone ñu jël kii xam nañ te xamee nañ ma de. nee nañ ma mbay mbay ñu ngi sol kagul kagul. Mhm. ana manifester ak sol kooku. booy Sonko yi la. ba pare ñoom ñoo partagé njëkk a parce que kenn xam ko woon kenn xamul ne woon mbay dóor nañ ko. ñoom ñoo partagé seen post yi ne. Mhm. mbay da doon filmer njëkkantu ne mbay da doon filmer manifestant yi moo tax ñu attaqué ko ñoom ñoo def seen post post ñoom ñoo def post boobu. si booyu Sonko yi si paasu Sonko yi laa gis. Ah, ñëpp ñëpp foofu leen ko gisee. TikTok Galsen moo ma ko moo njëkk information bi la njëkk a def rek daw <coughs> xamoon na fi ma nekk moo jël yóbbu hôpital booy dóor ma dóor ma dóor ma dóor ma dóor ma muy bëgg a dee mhm. ah ah dóor taxawal mhm, dóor toj sam bopp deret man man maa faj sam bopp état joxuma si dara dara dara dara dara dara dara joxuma si parce que dama doon xeex xam nga la faraluma kenn ah yow Sonko ah moom lañ tëj léegi nañ xeex nañ xeex ak police yi mhm. ah man sama yu nekk si. mais est-ce que yow li di wax tout le lu sa yoon nekkul gis la ak ni nga amee. ma seen leader. attaqué wu ma seen leader. attaqué wu ma kenn. mais ñu dóor ma nangu sama xaalis ah nangu sama téléphone sama ñaari iPhone iPhone 13 iPhone 12 xaw ma. waaw lañ lañ xaalis bi ak vingt euros. kon vingt nga waaw maa ngi woon si kii bi. billaahi wallaahi tallaahi image yi image yi yi su takkoon. billaahi ma porte ba pare booy yi booy ñu jàpp leen tëj leen. Macky Sall bàyyi leen. léegi nañ ma jox sama xaalis man bañu ma Sonko de mais suñ ma joxee sama xaalis léegi léegi léegi léegi léegi ma safara Sonko nañ ma jox sama xaalis. booy ak Sonko yëpp dama koo mere. waaw léegi patriote dinaa dinaa lancer message wax leen ñu defal la kaña comme ni ñu koy defalee yéen loolu bañu ma ko sax mais bañu ko. mais sama xaalis la sama. këretu 100 millions yi 300 man. waaw bañu ma maa raw influenceurs yi gis nga suñ ma joxee sama xaalis. parce que Rasulullah naa ne bàyyi leen Sonko ba Macky Sall dina ko dégg. naa wax Abdou Meng booy suñuy booy suñuy kii booy suñuy mars bàyyi leen ñu mars naa wax. général musa Fall booy suñuy mars nañ nañ nañ nañ kii nañ nañ bàyyi leen ñu mars waaw man mën naa loolu. nañ ma delloo sama xaalis. billaahi wala suñ ko delloowul damay takk rajo yi chaque jour chaque jour Sonko yàlla nañ ko tëj ba damu taay daa mu génn. mais mais Macky day def tey sotti wax de xamul nag lan lay wax Macky moom daal. Macky fi mu nekk nii suñ ma delloo sama xaalis man Macky su génnee na day position naa wax naa wax vidéo ne ko Macky demal gars yi doon si yow. dina dem waaw déedéet doyaluguñu mag yàlla na jàmmam yàgg ah. yàlla na jàmmam yàgg parce que fi nekk ni moo war a lijjanti dëkk bi mais booy yi su nekkee ñu ngi leen di génnee ba tey nañ leen arrêté Macky il faut mu arrêté booy nañ toog si kaso ba si kanam nañ leen téye parce que booy ay sàcc lañ ñoo ma sàcc booy ñoo ma sàcc booy ñoo ma sàcc booy booy fii fii laa toog fii fii laa toog si buntu kër gi ñu topp ma bu fii ak moto yi naan ma boy boy billaay naan ma ay xam nañ fi nga dëkk di ma menacer ma boy xamuñu sax fu ma jëlee waa téléphone xamuñu ñoom fu ma jëlee waa téléphone di ma topp di ma sàcc dugg nañ sama kër temps yooyu dugg nañ sama kër temps yooyu ki dajji waat sama kër fi ma njëkkoon dëkk dajji yóbbu ma sama sama sama sama machine téléphone sama machine portable moo tax fii duñu xam fu fu fu ma fu ma dëkk. booy yàlla bu gisaal na tëj booy yi ba si kanam. dëgg lañ tëj parce que damaa sonn quoi. booy yi suñu leen bàyyi dañuy kii perte bi dëkk bi kii man moom dañ maa sonnoon lu ma yor ñu jël ko dañ ma jël sama xaalis. mais jàpp ko deful dara tamit loolu moom. non nag ñoom ñooy sàcc ñoom ñoo ma sàcc nañ ma delloo sama xaalis tax delloo ñu ma sama xaalis yàlla ñu leen tëj nañ ma delloo sama xaalis. waaw léegi man dinaa wax patriote yi ñu lancé la kaña comme dama jàpp ne ñoom ñoo tax ñu agressé la woon su ko defee nga am benn cent millions wala benn dix millions ñaata millions nga soxla non non man soxla mais nañ def loo xamante ne. ñaar nga soxla ñoom daa gaaw de man sax am na ku ma woo woowoon. waaw benn patriote bu ma woowoon nee naa la may xaalis. may na ne ma. wax ci naa la may xaalis mais boobu ba tey gisuma ko. non non gisuma ko parce que Moustapha la tudd e, e, e, États-Unis la dëkk. xamu naan nga kooku. si ñiy jiite kañor yi. si la bokk. waaw léegi yow kon lancé benn appel patriote yi ñu defal la kañor. non nañ ma jox sama xaalis rek man nañ ma jox sama xaalis sama xaalis maa ko moom kay ñoom ñoo ko jëloon nañ ma ko delloo comme si ñoom. waaw nañ ma delloo sama xaalis comme si ñoom ñoo nee ay sàcc. duñu ay sàcc yàqu dara yàqu leen dëkk bi garaawul mais man sama xaalis ñoo ko jël. ok sama téléphone ñoo ko jël comprendre nga nañ ma delloo sama xaalis. mbay mbay foofu leer na. incha allah dégg nañu Sénégal mu mënoo nekk si dëgg mënoo wax dara loo xamante ni Sénégal surtout imbécile quoi. imbécile mbay ñu ñu dem ci beneen point mais mbay yow xam nga nga bokk ci sow bi te da nga ci def liggéey bu am solo quoi qu'on dise nit ñi dañuy namm say vidéo. bii lan dimuma. waaw waaw waaw bii moom bëri ma bëri bëri ma jaa. waaw ah waaw bii ba bëri bëri ma jaa yaa ngi ma dégg yaa ngi ma dégg. ala ko mɔgɔ asan. bɛɛ poro min ɲa bɛɛ poro ma ma